nañ tey ci Bignona euh, muy délégation boo xam ne responsable moral bu daari Hizbut Tarqiyyah Serigne Youssouf Diop moo ko jiite ci ndigalu xalif général des Mourides Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké euh, ginnaaw boo xamante ne ay yëngu am na ci biir Sénégal ba ay bakkan yi am ci itam ñu ci am ay gaañu gaañu yu métti euh, Serigne bi jóg ci dox ci ay tànk am kilifa yu mu yebaloon yabaloon ba Bassirou Mbacké Porokhane jiite woon mission boobu. yàlla suñu borom dogal itam tànk jàmm yi ci sëriñ bi bëggoon mu am ko ci. bi loolu àggee nag muy yëkkatiwaat juróom fukki million muy cinquante millions jëmee ko ci ñi nga xam ne dañ cee am ay gaañu gaañu ak ñoo xamante ni dañoo am mbokk yoo xamante ni seen bakkan def cee ñooñu nag di lim boo xam ne euh, biñ leen xoolee euh, fu nekk la ñu ne ci Sénégal waaye li ci ëpp ñu ngi nekk diggante Dakar ak Casamance particulièrement Bignona ak euh, fi nga xamante ni mooy euh, Kolda <coughs> bi ñu tàmbalee mission bi Dakar responsable moral daara Hizbut Tarqiyyah mi ngi commencé euh, ci quartier yi Médina Fass HLM ba dem ci banlieue bi diggante Gueule Tapée di moins que Guédiawaye ak fi nga xamante ni mooy Yëmbal ba Kër Massar ba Mbaaw foofu yëpp dem na fa ba joxe yóbbante yi ko sëñ bi joxoon ndigal mu jox ko tey nag mu entamé état bu euh, Kaolack ak Ziguinchor région de Kaolack daf ci am ñaari dëkk muy dëkk bu ñuy wax Ndofane ak dëkk bu ñuy wax euh, Thiamène Sankhène nekk ci booru Médina Sabax foofu itam dafa am ñoo xam ne dañoo wàcc liggéey kon moom it jaar na fa ci parent yooyu famille yooyu jox leen li ko sëriñ bi yónnee woon ak mas ak ak ak ak ak euh, maanaam masawoom bi mu ci jógee nag la ñëw ci Bignona Bignona bi ñu fi ñëwee ñu ngi jëkk a dem jànki muy diggante foofu ak Ziguinchor mat na une vingtaine de kilomètres ginnaaw bi euh, foofu am na ko fa ñàkk bakkanam bi ñu fa jógee ñu ñëw ci Bignona euh, fii jot nañoo dem kon ci ñeenti kër yoo xam ne ñu ñàkk seen bakkan lañu ak ñenn ñoo xamante am nañu ay gaañu gaañu incha allah noonu la fas yéene wéyal mission bi ci Ziguinchor ak ci Kolda kem ni ko Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké digle. message la leen sëñ bi waaw message bi mooy message wu ñu euh, sant yàlla suñu borom. ginnaaw indi na jàmm waaye itam ñëpp dox ci jàmm. wax ko ndax moom sëriñ bi ku ne gis na ni saa bu situation bu mel ni amee ci Sénégal dina ci wax dina ci jëf ginnaaw loolu itam euh, ñi xamante ni am nañ ci mbokk yi loru mu massawu leen te ñu nangu dogal suñu borom te muñ ñi nga xam ni itam am nañ ci ay gaañu gaañu mu ñaanal leen suñu borom yëkkati leen ci seen tawat yooyu amit lu lu am solo loo xamante ni yëkkati na ko jàppale leen ko ci ci paju googu ak yëgal leen ne leen xam na seen i jafe-jafe te ñaanam moo ci jiitu euh, ñi nga xam ne yàlla dogal ñu ñu ñàkk ci seen bakkan am nañu ñaari million ñi nga xam nante ni am nañ ci ay gaañu gaañu am nañ ci euh, li dale million wala téeméeri junni wala ñeent fukki junni mi ngi aju rek ci méttitu gaañu gaañu fi mu toll ak itam li nga xamante ni paj yi moom moom moom lay laaj